baan waaw. xalaas bi njëkk lu mu wax. doy lu ma nelaw de. daloo nelaw. gaawal li ngay def damay dem tëddi. waaw góor jigéen ñi di defeere nañ leen. ñuy ñaan sénégalais yëpp nañu ànd tudde ko senegal gii ñoo ko moom muy kilifa diine yi kilifa aada yi képp koo xam ne senegal ñor na la ñu xeex xeex mbirum góor jigéen fii ci dëkk bi. ndaxte ñun ñëpp dañoo am i doom ci sunu doom yi dañuy jàngi di football di dem fu ne te ku ne la ñuy dajeel. lii fi xew semaine bi passé ku mu tiitulul man man su ma tëddee du ma nelaw defeere nañ leen waaye nañ ci jóg xeex ko sans distinction de religion et de parti ay politique yu ñoom seen génn ci wàllum politique xeex mbirum góor jigéen te bàyyi naan ay dañoo am doole fii kenn amul doole yàlla rek moo am doole. Ah, amuñu fi doole sax nag. noonu nit ñiy wax loolu te loolu su ko booy déggee dañuy jëlee ni may fit ay naan da su dañuy egg rek ñuy libéré. ba pare tukki dalee na yomb. waaw dafay loolu. loolu mën na influencer suñu doom yeeg suñu rakk yi. sekk ñi leen di jàppale ñëpp nañ xam ne fii Sénégal la dëkku góor la ay góor yàllaa fi ne. Hmm. fii góor jigéen mënu fee naane ñeex. nëkkoon nañu. te gis nga am nañ doole nag. waaw mais am. am nañ doole da nga naan. waaw ngor moo mën doole. nañu gore. waaw voilà bu ñu goree. waaw lu ne mën nañ koo résister. doole de. si am nañ doole. ah ñu amee doole. Ah, non en fait. boo amee doole di nekk ci loo xam ne da ngay làqatu. waaw mais loolu parce que. ci da nga nekk ci lu bon. waaw non loolu mooy loolu mooy mooy mooy ñàkk jom. Hmm. ñàkk jom am doole te wuta ñàkk jom ñàkk jom gi mooy dem cim réew ñu ne bu ñu fa def lii nga di ko te fi nga xamee ne ñoom dañoo torox ci àdduna bala ñuy egg àlaxira ñoom góor jigéen yi hmm. mooy maa ki nga xamante ne ji mooy góor jigéen bi waroon a sëy hmm. ba mu demee di defal surprise jigéen euh, jëkkëram góor ki ko waroon takk hmm. ma ngi ko fekk moom ak beneen góor jigéenu médecin xaw ma aide soignant ñu nekkal ñuy sim seen mari ngaañ yi hmm. benn deuxièmement mooy fi nga xamee ne dañoo torox ci àdduna eggaguñu àlaxiram fa ñu jëloon appartement ba trente mille lañ ca waroon a fay junni buñ ci avance lañ am cinq mille lañ ci avance moom lañ ci avance léegi c'est-à-dire yow yaa ngi torox ci àdduna egg goo alaxira après nga yaakaar ne yow li nga nekk aw yoon la. Mhm. après ñu ciy dugal élèves yi maa ci ciy dégg élèves buy jàngee de la fosse. maa benn euh, agence. léegi après yow da téye sa doom naan du jàngi de la fosse da ngay téye sa doom naan du jàngi école bële da ngay téye sa doom naan du jàngi fale alors que benn nit la fay nekk wala ñaari nit nekk ci école ba lëmbi ko ëpp fa coow moo tax dañ leen a war a. corriger dañ leen war a sanctionner ba ñu xam ni. sanctionner nañ leen. gën dañoo bari. te ne leen sénégalais yëpp teg bët fu ñu leen libéré ne dëkk bépp jóg yuuxu yuuxu yuuxu ba ñu dégg ko beneen booy parent yi nañu bàyyi seen doom yi ñuy bàyyee noonu rek booy yi ñu jàpp bi ñu ubbee seen téléphone yi lañ ca fekk kenn ñim mënu ko wone fenn kenn mënu ko wax. lañ lañ ca fekk bu ne nga topp ko di ko mooy di effacé mais defal li la war rek. dañu yàlla sàmm rek sàmm aba sa papa mayu la woon jàmm. man ñii sama papa mayu ma woon jàmm. boo baale woon ba ñëw dañuy xam nga li may wax. boo baale woon ba ñëw dañuy xam sa ndax da laal cigarette waaw wala déet cigarette. voilà voilà doo doo doomi xale gone jooyi gone nag moo gën jooyi mag. dëgg la bëgguma am doom mu màgg nekk góor jigéen na ko ñëpp di wax <laughs> bëgguma maam màgg eh, jur doom mu nekk góor jigéen nekk góor jigéen xëy suba di lekk suuf ba xëy dee sax moo gën nekk góor jigéen. loolu il faut ñu koy def ci bopp booy yi di contrôler xale yi di xool seen téléphone yi muy góor ki ku jigéen ki. mais ñi ngi fépp nag baan ñi ngi fépp moom. léeg-léeg nga gis jigéen ñëw naan la sama jëkkër mënaluma lu bari. waaw parce que soxlawu la. Mhm. dëgg la. waaw dañ koy sàkketoo rek. Mhm. bari na jigéen yoo xamante ne jii fii. Mhm. ñoo ngi ngeeg seen boroom kër. ñii xam nañ ko bàcca. parce que sutura moo ñu sonal. ñii xamuñu ko. ñii xam nañ ko ndax xaalis a leen fa mais soxlawuñ leen. ñii xaalis a leen góor na ñoom la ñu soxla. Ah? moo tax man lañ ñoo ngi fu nekk. mais baan kii euh, na parents yi. Ndiaye na parents yi teel a orienté seen doom yi efféminé yi nañ leen teel a orienté mhm. teel leen accompagner ci def yëfu góor tey jii loolu mën na la influencer ci dem ci leneen ci lu bon am na ci sax ñoo xam ne da nga leen di accepter parce que man acte bi tant ci ba ñu jàppale ci ni mu flagrant wee man mën naa ni peut-être mën nañ ko dimbalee orienté ko lii lii mooy ngóor jigéen dëgg te ñii dañ leen war a sanctionner dëgg réew teg ci seen bët dëgg mu leer nañ ñëpp xam ne góor jigéen encouragé wuñ ko fii ci réew mi mu leer mun fay am de dëkk bi dëkku góor la nañ doxal ci xalaas bi kee kii mooy kenn fii doon waxtaane démb waa suñu waa jooju nga xam ne dafa takk jabar fii mm-hmm. jëlal ko appartement ak yépp jabar ji tey ji la ci ay waxam nee na tey ji lañ koy takk man woo naa jabar ji jëlul li waa ji wax lépp ak preuve yi ma waa ji jox yépp yónnee naa ko moom yónnee naa ko ndaw si mun ma je te reviens boobu ba léegi tontuwuma ci ba ci suba gi maa ngi koy woo jëlul ndijaay ji nga xam ne moo bëgg a tas sëy bii may ko ab cousin am tey ji tey tey tey moom it woo naa ko jëlul téléphone bi envoyé naa ko lépp renseignement yëpp mais réagiruñu te lii waa ji ni ne li ko yéem nee na ci 4 jours dama bëgg nga may sama baat euh, ginnaaw suba lañ may takk lii lépp lépp lépp lépp ci semaine bii la dama bëgg nga may ma sama baat ak bi mu nee ko dañ may takk matul 4 jours léegi nag waa ji nee na ko d'accord ku la neex sëyal sëyalal waaye bagage ya ma la joxoon nag lépp man delloo ma sama yëf ak sama alal ak ya ma dénkoon waaye da ko dénkoon iPhone yu seer yooyu tamit. Mhm, waaw. da ko mhm. koo dénkoon ni ko téyel ma ko ba ma ñëw. li ba maanaam li ko waa ji dénk ak li mu ko jëndaloon li mu ko joxoon yëpp dafa bari waa ji nee na na ko ko delloo li ci gën a yéeme nag waaj nee na ki mu ko ki mu ki mu ko ki koy ki koy takk xarum tabaskeem sax waa joojoo ko jëndi woon maanaam mu ngi ko doon fréquenté tout le temps. di gis waaj ji mais dafa jàpp ni waa ji mbokkam la rek bu koy wéttali déglu ko. ñëw naa Sénégal nekk ak moom ba samay vacances jeex mu ne mu won ma lu jub lu baax luy kii jullité affaire yooyu xaw ma ndax da doon sànni mbaal mi xaw ma affaire yooyu quoi. waxtaanee yóbbu naa ko suñu kër ko booy yi affaire yooyu après voilà quoi am na ñoo xam ne nag bon dañ si doon doon doon dutee ba ma boo xam ma lu leen boo xam ma li leen naqari quoi. donc euh, mu dëgër bopp parce que waruma ko gel bi waruma ko et puis voilà présenté mi na yaayam yaayam doon ko jullitee affaire bi na noonu quoi donc voilà léegi mu nekk sëram léegi mu ne noonu ñoom ñaar ñaari kuy mënulu mënulu dëkk ensemble moom dafay déménager ma ne ko ok muy wër logement mu dem dëkk cité cité boobu laa xam nu mu tudd sax donc euh, mu dem dëkk fa mu ne caution bi trois cent cinquante mille la ak euh, deux mois de caution la ak ak ak kii quoi nu mu tudd courtier ma jox ko léegi chaque mois ñuy fay kër gi cent cinquante mille francs kër gi sa deux cent mille la si li mu ma wax mu ne benn gaan la jox benn chambre bi léegi ñun ñuy fay cent cinquante mille francs léegi cent cinquante mille francs yi dama ko koy ko cent mille francs pour li muy dundee et léegi mu war a aménager gàlle bi mu ne lal ok matelas matelas bi mu bëgg mu ne cent trente mille lay jàpp mooy matelas yooyu ñuy lem ma yëkkati ma yëkkati ma yëkkati cent trente mille jox ko ko mu ne ko quatre cent cinquante mille ma yëkkati ko jox ko télévision bi mu ne ma ñaata yoo xam ne ay la quoi kii boobu iPhone 11 boobu may ma ko ko dama ne ko denc ko téel ma ko ba mu ñëw bu ma la koy may may la ko mais mayu ma ko ko na ma na ma restituer sama téléphone iPhone 11 boobu ma leen ma leen woon si si photo yi donc tout ça yaay kii nag nijaay ji nijaay ji moo bëgg a tas sëy bi mayee ko parce que li mu wax nijaay ji la xaw ma lan la nijaay ji kii moom ñu woo ma même pas si même pas après màggal même pas matul six matul jours bi ma nijaay ji wooyee matul quatre jours sax quatre jours si la yem nijaay ji woo ma wax ma ma ne ko non affaire bi. d' accord amul problème man dama ko ci xaalis li ma def si kër kay sama kër dama waroon ñëw pour dëkk ci dootuma loué location dootuma loué appartement pour bu mu ñëwee chaque fois di di loué appartement dama ko ji noonu pour loué pour dëkk fa heure bu ñëwee vacance dëkk fa mu ne ma ok léegi mu ramasse kër gi yëpp dëkku fa sa deux mois maa ngi continuer fay kër gi man dof bi maa ngi continuer fay kër gi ndekk dëkkutu fa seen kër aussi même chose la mu ne day dëkk sœur bi naa koy jox quatre-vingt mille francs pour muy participer si kër gi ma koy yónnee cent cinquante mille chaque mois mu yónnee ko cent cinquante nekk nañ ma bëgg sekk kër ku góor ki à Thiès ba ma xamante ne yaay ji yaay ju baax papa jee gën a jullite kuy jullite pa bu baax te man mën naa teg si kaamir sama loxo mais pa bi yëgul lu xew dañuy piéger pa bi parce que pa boobu du dox si caaxaan boobu du dox ci lu dul dëgg maire bi tamit pareil ma xam fu ba ci doomu waa ji xam naa doom yi doom yi dañ may laajte mais comment nag jël waa ji sama biir kër kër ga di gën ak moom di def ak moom lu nekk aussi li ma gën a yéeme li ma a yéeme ndi yaayam jooju ndi yaay ji xaw ma muy accepté yenn yooyu ci dugg di tas sëy xamu lu ñu ko wax di di takk sëy moom war na te dégg na li ma ko wax nañ ma remboursé suma xaalis dañ ma remboursé suma matériel bu ko neexee ak ku ko neex yow deful sa quatre jours may ma suma ba bëgg a sëy jeudi mais xanaa peut-être xanaa dafa ëmb dafa biir waa ji biiral ko peut-être peut-être daf ko biiral ñuy ñuy laaxatu loolu rek la mën a demee peut-être waa ji daf ko biiral muy laaxatu mais man na sëy ku ko neex moi je m'en fous maa liggéey muuni bi c'est pas grave mais acte bi moo rafetul dama remboursé suma xaalis mais ça va plus loin que ça plus loin que ça daf ma xamul nag daf ma xamul billaahi si man lay mujje waaw nee na nag euh, takk ga tay la mais ba léegi nii ndaw si su ñu ngi koy ubbil bunt yi pour que su su fekkee loolu lu am la wala lu amul la ñu ngi koy ubbil bunt yi ba léegi parce que ba sa matin ñu ngi koy jokkoo ak moom mais nangul jëlul téléphone bi ba ci ndijaay ji mais li muy wax nag lu jar a bàyyi xel la de. li mu ne est-ce que femme bi waa ji ëmbalu ko ñuy jéem a taxañ taxañ yëf yi. waaye c'est que nag imaam yi nekk ci dëkk bi tamit doo wala ñuy takk war nañoo enquête xam kii am na jëkkëram amul jëkkër ëmb am ëmbul waaye ñëw jamono damay maye sama doom rek. mais ci kaw kàddu la mën a sukkandiku. waaw waaw waaw xam nga dañ leen mhm. nga ko. Mhm. Mhm. doom baa sab jarbaat dem ci imaam ne ko dama la koy maye li war a def def nañ ko ana mbokki ndaw si. ana mbokki waaje. donc ñu seede ko mais imaam mënut a contrôler femme bu ëmb ak bu wusi. non pas pas mu ko quoi mais. imaam rek moo war a fa sëy sëy imam rek moo ko war a. non mais non non du imam rek. xam léegi léegi sëy ci saal bi saal yi lañ koy. takkee tey dugg saal juróomi nit toog ñu maye la. xam nga tey ji dëkk da dëkk HLM Grand Yoff ñu ñëw maye la Medina. boo ko yoree H&M rek sëy. Ah, na nu muy demee mu teggee ci yoon de nga ah. ciw yoon hmm. donc ci mu ci mën di doon daal lii mu mujjee wax nii hmm. lu jar a bàyyi xel. Ah, xam nga gars yi léegi loolu lañ xewal jam wiiri. waaw jam wiiri jam wiiri. Mm, mooy football yu njëkk yooyu. Mm, jam wiiri waaw. waaw jam wiiri. <laughs> man xam nga yooyu man léegi. waaw eh, li ma koy ñaan mooy. Mm-hmm. booy sonn ci mbir da lay amal njariñ. Mm-hmm. li mu topp nii. Mm. bu ci dajoon àddina ak li ci biir. ci du ko amal njariñ. Mm-hmm. na jël femme bi na ko yóbbu ci yoon na ko sëriñtu na ko fuñ xam nañ fa dem. Hmm. mais finalité bi mooy amalu ko njariñ pertement la. Hmm. moom perte na ba pare. Hmm. na gëm yàlla bàyyi ko bàyyi koog yàlla jarul yi muy def nii. jaru ko de. Mhm. ay nañ ma fay luñ ma joxoon nag nañ ma fay luñ ma delloo. Ah, tey loo koy topp ba ngeen dem ci yoon lañ lay laaj mooy nee nga yaa def lii indi preuve yi. Mhm. dégg kon. même lal boo fa jëndoon teg fa kay ko jaaya ñëw ne maa ko ko jaay te wane woo facture bu wane lii sa tur la nekk. Mhm. bu femme bi dëgëree doo ko doo ko yóbbu. donc kon jarul sonn. na ko mooy lépp rek te war yow takk euh, confiance bu ëpp lor na la. perte nga après jàllal àdduna continuer. jabar ami doom ba pare xam nga ñëwaat ndakaaru fi gis benn xale ba ñu luq seen bët ak ñu dugg ci en général foofu lañuy amee problème. bu baax a baax. gu nekk à côté kër googu la ni ci tiit foncier baayam la bokk. Mhm. léegi nag kam euh, kër googu noonu ki ko moom gaañu na yaa dix ans donc ñaari paa yi kenn ki gaañu na vingt ans euh, dix an après la beneen paa bi gaañu. Mhm. léegi fi mu doom yi ñoo nekk di. xëccoo di xëccoo. kii moom moom titre foncier mais dafa am benn kër koo xam ne ñu dëkk nañ ci kër gi plus de quarante cinq ans Mbaye Faye mi dafa jóge Europe. kii waxi ndaw sii di waaj a wax ni kër gi ngeen dëkk sama kër la woon euh, sun ci sama titre foncier papa la bokk ndaw sii di waaj wax nee na mbay fay mii su yàlla nangu woon jabaram lay doon pour wane seen dëkkandoo ni ñu meloon ñi ñu déggoo yooyu woon ndaw si man benn soxna laa soo xam ne maa ngi dëkk fii ci Mboro doon conseillère municipale doon def naa sept tamit nekk adjointe au maire waaye nag maa ngi dëkkan Caaroy Géej en face chez derrière station Shell bi falaa defee sama sëy yi ci sunu kër yooyu xam ne ku ñuy wax alaaji Mor Sow Ndiaye bu pàkku làmbaay moo ko moom ñu dendee nag ak alaaji Saliou Faye arrondir dossier bi ñu war a dem audience man sama avocat li ma ko wax dama ni ko bu njëkkee dikk taxaw rek ba indi li mu war a indi laajal ma ko procuration bi wane ne famille kër Saliou fay ñoo indi ñoom ñoo laaj sunu kër yi mu doon ñetti kër génn kër gi tabax nan ko investir ci c'est une école de formation professionnelle ma ne avocat bi laaj ko procuration ndax moom dong bokkut miraas mi miraas moom miraasum baayam fanweeri nit lanu ak ñeent ñun sunu miraas ñaar fukki nit lanu ak ñaar ñun sunu procuration ñu ngi ko yëkkate teg ko ci sunu loxol mag ju góor ju tudd Mamadou Ndiaye fournirul procuration mu ne nee na dañoo dugg ci biir titre foncier ma dem gis la maire de Thiaroye rencontré ko ma ne ko man kat dan maa indil assignation ne ma damaa dugg ci titre foncier mbay fay doomi Saliou Fay moo ma ko indil na nee na damaa dugg ci biir titre foncier baayam ma bëggan yéen ñi yor mag bi ak plan Caaroy Géej ngeen wax ma ba xam tàllal wan ma plan bi ba xam ndax damaa dugg ci biir wala dugg ma ci biir moom la maire mu tàppe ordinateur am ne ma dugg leen ci biir waaye nag boo bëggee am lu leer géomètre bi xam ne moom moo lotissé Caaroy Géej naa la jox ni naa la naa la booleeg moom nga dem ci muy Ousseynou Faye cabinet ma ngi nii ma daal di jël kayit gi dem ci Ousseynou fay ne ko meera ma booleek yow nee na nga vérifier ma ba xam ndax dañun dañoo dugg ci biir titre foncier yëpp saali fay wala dugg ñu ci biir titre foncier Saliou Faye bi mu ko vérifier mu ne ma dugg leen ci biir titre yëpp Saliou Faye Saliou Faye titre foncier am la lii la am moom la délimité yéen yéen a ngi bokk ci teeni bi terrain non immatriculé ndax caaro yi daanaka amut lotissement dañ ko daan dagg daalee tan rek fii ci yéen la commencé jël station Shell bi ba ca marché caaro yi géej bokkul ci titre foncier bi ñoom ca seen ginnaaw am na ci benn parti boo xam ne nii jot nañ koo def titre foncier waaye yëggul ci yéen moom nag li baayam am lii la délimité mooy vingt 20 73 waaye pour mu leer dinaa la bindalaat kayit nga dem impôt yu domaine bu géejawaay boo demee nga vérifier lu waat foofa ba mu gën a leer mu bindalaat nu ko it ñu dem impôt yu domaine bu Guédiawaye ñu dem vérifier ñoom it ñu euh, euh, euh, dëggal li bi wax ak li géomètre bi wax ne kër yi duggut ci biir titre foncier bi moom délimitation fii la yam yéen fii ngeen commencé yam fee ñu yaakaar ne loola jeex na ndekete moom mi ngi ci dëggam te moom sama yaay wax naa la léegi ci biir biiri wax ñun daanaka ñoo ko yar foofa léegi nag biñ ciy dem indiwul procuration fanweeri nit ñi ak ñeent yim ko bokkal ndey ak baay ak ñim bokkal baay indiwul procuration bi ñu dem ba ca biir ma ne ko léegi na indi plan bi ñu xool plan bi ba xam man damaa dugg ci biir am dugguma ci biir wala mu jox ma këyit goo xam ne dani baayam moo ko fi bàyyi na moo moom kër yi mais moom joxewul génn këyit droit rayalu 2073 bi rek ci la bëgg sukkandiku ne moo moom foofa te damaa yaakaar ni am tiitre foncier taxut ka nga dendal nga moom fa mu nga moom ko ñu dem continuer ca loola indiwul procuration indi lu ma benn papier fii ci instance euh, grande instance bu Pikine bi indi lu ma génn këyit gu firndeel ne lii moo ko moom te man maa ngeeg sama këyit sama acte de vente yi ma waa fayen caaru géej yi jaay maa ngeeg moom dem naa ba ca ñoom ñu ne ma effectivement lii sam papa ko bindan moo leen jaayeen foofa leer na naññ ndax sam papa kilifa la woon ca boobu dëkk mbedd ma niy jaar tey jii kër googa sam papa jënd dagg ko may ko waa dëkk ba ne leen dee leen fa jaar këyit yee ngeeg ñun bi mu dee dañ ko bàyyeeg waa dëkk ba ndax da leen ko mayen ñooña nenu fu mu leen woo na ngeen nu woo ñu taxaw témoin leen dégg nga ko mhm. tey yii nag am na ay notable yu nekk fële ca Thiaroye sur Mer yi nga xam ne lii fale leen fekk yu nar a def benn xawma conférence de presse xawma point de presse euh, tey jii pour daal wax ci lii mbay fay mii nag man woo naa ko téléphone jëluma ma woowaat ko jëluma ma yónnee ko audio yi audio ko ni ko man la moom Mamadou Ndoye Bane kat dama doon vérifier benn information nangam ak nangam faalewuma dix jours a ngi nii maa ngi jéem a maa ngi jéem a jokkoo moom gis naa ne mi ngi may liir et tout mais daal tontu pëppewul benn benn benn mot comme du ma xaat tamit fekkee mën naa tontu lii lii tamit mi sama numéro ñu ngi koy ubbil suñu bunt parce que ñun dañu bëgg di informer juste et vrai bëgguñoo tooñ ma Samba wala tooñ ma Demba. waaye lii ma fa su ma doon femme bi. Mhm. comme dem naa ba ñu xamal ma ne ma titre foncier bi nga yor. Mhm. bokkul ak bële. Mhm. te yoon a la ko wax. maanaam ñi fi buur teg ñoo ko wax. du ma ci defaat dara. waaw ñoom ñi ngi dem yoon. damay toog di seetaan rek comme daal ñoom bindal nañ la ne yow mii kii li muy wax ci wàllu yoon. amul. Mm-hmm. yaa ngi sa ak sa titre foncier moom mi ngi ak bosam. Mm-hmm. jaratuta sonn bëgg a dox ba tokki. Mm-hmm. toogal xaar rek parce que Sénégal lu mu fi mën di doon ci yoon lay teere. comme yoon la jox dëgg pour le moment. toogal di séntu ba ngeen demaat ca yoon. dégg nga géomètre bi aussi. woo naa ko tey suba. laaj ko ci problème bi mun ma mbay fay mii di wax li muy bëgg a jël moomu ko. géomètre ma la. géomètre bi ci boppam. moom wax lii lii sa matin mi ngi déglu. voilà day leer de. ayca nañu dem euh, allo président. waa cybercriminalité jàpp nañ ay waa Nigéria yu baree bare fële ca Cambérène mooy ñooñ di nekk yor seen ordinateur yi nekk ci nekk di arnaque sénégalais yi ci biir internet bi jàpp nañ ci ñoo baree bari ñu ngi fii ci cybercriminalité kun ci moso a dóor rek na nga fa doxoon. ma jaalewaat bu ñu leen fi tëj di feesal suñu kaso yi commissaire commissaire Kandé. ma jaalewaat euh, colonel Konaté ah. Konaté ñàkk yaayam waaw maa ngi ko koy jaal di ko jaalee homme de tenue yëpp yëpp yëpp yëpp bu bu gendarmerie waaw bu gendarmerie Colobane maa ngi koy jaal yaayam di la famille Konaté jaajëf nañu dem allo